Euh, ku doon liggéeyal yàlla la te yàlla ku koy liggéeyal bu kenn amul sa pay moom am na sa pay loolu la ko yàlla faye ba léegi bu bisam jotee kenn du ko fàtte ñëpp a koy xalaat ñëppay delluwaat ci ay enseignement am ci tegtal yi mu daan tegtal njabootam surtout waaye surtout homme politique yi réero yi ndaw yi daan am te du ñàkk di am nag yenn saa yi ci ñaar ñu séq lang moom bokkoon na ci ñi nga xamante ni bu yëgee lu ñaaw dana indi xalaat bu rafetal dana woote woote pour lu boole ak lu gën a dëppale waaye surtout dana ko def ci yoon mhm. justice bi nga xamante ni équité bi war a am diggante mais surtout euh, ñeewante gi mu doon ëmbal réew mi nga xamante ni da daan wax toujours ni Sénégal gi lu ñaaw du fi war a am mhm. tant que mu nekk suwem yaakaar naa ni sénégalais yi fekk si nañ ko ci mu liggéey liggéey boobu nga xamante ni tey mën naa wax di ko wax postérité maanaam njaboot yi nga xamante ni ñoo ñëw gannaawam buñ ko xamul woon sax war nañ leen ko jàngal Dabakh dafa waroon a nekk sujet à euh, référer ci ndaw Sénégal ñu xam ni amoon nañu maam bu mel nii comme ni mu amee ci réew mi yeneeni maam yoo xamante ni kenn ku ne ak xaasiya bi la yàlla defal Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh bokkoon na ci ñi nga xamante ni seen nekkin ci réew mi rek dafa doyoon yàkkaar dafa doyoon dal-dal dafa doyoon it li nga xamante ni moom la ñëpp bëgg te mooy wóor nañ ni yàlla soriwul woon Sénégal tant mu nekk fi te ba léegi loolu la yàlla dogal ci moom ndax ñi ko wuutu ñëpp ci boobu euh, euh, yoon la ñu taxaw eh, Cheikh Mouhamadul Mansour moo nekkoon kuutaayam jóge fi liggéey li mu liggéey ñu gën koo min ci borom daara ji mu jóge fi Seyid Cheikh Ahmed Tijane si al Maktoum di xalifaam ren la euh, wàcc liggéey tabaarakallah tey loolu yëpp ñu dajale ko ci loxo Cheikh Abdoul Aziz Al Amin ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla moom it mottalil ba ndam yi ay baayam ay maamam amoon ci liggéeyu yàlla bi mu am ko ab euh, ànd ko njaboot gi yëpp nu duggaale ci biir ñu ngi leen di ñaanal jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu